numéro 4. Mhm. waaw numéro 10 bi ngay dégg xam nga la war a numéro 10 bi. Mhm. mooy kiñ tër rey tëraat rey tëraat rey ba mu doon 4. ñetteel bi borom tubaab jomam ak ngorom mayu ko muy xaar ñuy rey keneen mu ñëw taxaw numéro 4 nga naan kii xanaa day fontu xanaa yëgul di xew. Mhm. moo a numéro 4 mais numéro 10 la woon borom tubaab. alhamdulilah. te 17 daal 10. waaw waaw. bu bàyyiwul ba 10 mën nañu reyaat yeneen. yeneen. yeneen yeneen ko xolam xolam may ko ko. déedéet jomam ak mbay ak ngoram mayu ko moo tax koo dégg ku naan la bureau ba fa ndar mag ñi ñoo ngi doon lekk yàpp xaj dañoo juum mm-hmm. kon borom tubaa doonut lu mu doon mm-hmm. kon borom tubaa doonul borom tubaa mm-hmm. toog di seetaan nawlem bi lekk yàpp xaj borom tubaa kon doonul lu mu doon ndax misaal bi li koy firndeel mooy kiñ tër rey tëraat rey borom tubaa ñëw taxaw ñu mën a kàpp kon les valabulul maam daam kon les valabulul waaw uh-huh. lekk yàpp xaj valable fa ndar mhm. ndax borom tubaa jom ak ngorom mayu ko ñuy teg morom nawleem di ko lekkloo yàpp xaj muy seetaan mhm. wax nag bu feebaree nopp koy dégg dañoo war a wér waaw mam daam màggal gi tax mu kaatee borom tubaa doon numéro 4 waaw màggal doon 4 septembre waaw yonent bi alayhi salaam siifaram 4 la Muhammad waaw moom Muhammad mhm. moo tax mu ne maay xaadim rasulullahi fii soodaan may ramb xarnu bi bii daan lan la ci teg sëf leen ma jóor li ma danaa ko jaamu la ilaha illallah waaye àll xanaa nekk fi àll maanaam mu yan banu yenoon xubb yaag ab daal ya te attanun ko moo ko fa raw gaaña aya suratul laxwa suratul am ci laay Sëriñ Tuuba yen ba nu yenoon xutbu ya ak labdaat ya te attanuñ ko Sëriñ Bamba ko fab raw gaaya dëggañ di way tawatul balaaya balaaya suratul lawaaya la am ci laaya sëriñ si naaxis lanu Sëriñ Bambay kaamil mbër yëpp suq lañu Serigne Touba bàyyi Serigne Saliou Mbacké mooy kaabal ah ma wax la la waral màggal ga nga xam ni Serigne Touba moo réel demam ga Serigne Bamba dem na Conakry ba dem Mayomba te mës la yox yoxi ba ni Touba bi dama bëgg dem Touba. kasoog fital mbaa karawaas mbaa jaasi loolu du tee bàyyi Cheikh Abdoulaat di wéy ci naasi aa kasoog fital mbaa karawaas mbaa jaasi loolu du tee bàyyi Sëriñ Saaliw di wéy ci naasi xanaa xamuloo ni mu ngi màggal xanaa xamuloo waa France ñu ngi màggal xanaa xamuloo waa Brescia ñu ngi màggal xanaa xamuloo ni ah états ña ngay màggal te jii boo demee ba Rimini ca Italia ña ngay màggal Serigne Touba yaakaari jaam ñi daam yaa ma gën. yaa gënit ka gën ka gën ka gën ka ma gën lii de nangu naa ko waaye bàyyi Serigne yu Mbacké dongu laa ko nangul de man maa ngi koy moyo moy Serigne Bamba moom xoolul loolu moo ngi may maya may ay daam ndax ci la nit mës ngeen a gis ku ni mel ay koy may man xaw fenn sa kem ku xam kemam na ko wax man laa jiwul te xamul ku mel ni man bu gisul woon ku mel ni seexul xadiim yaakaari jaam yi samay mbir du jag te duma am ku lu may suturaal masamba moo tax ba man xam naa ni maa war mbooleem kuy sant Serigne Touba ngir balay sa bu nu yaa ma teral bu ay jógee jëm ci man ay mbàkke wal bëtikoo waaye mbooleem lu jëm si ci ci aw ay loolee na wëlbatiku xam naa ni seetoo la jaadu ci ñun seetoo la yell ci ñun da duyal ñëpp koo gis fam ndabam duyu ko moo tax bala maa dem dinaa la wax fukki mbir yoo xam ni moo ko jagoo te gisoo ca bokkaale doo gis kenn fable la ko sëñ bamba yaa gore sëñ bamba yaa yaatu sëñ bamba yaa ragal yàlla sëñ bamba yaa liggéeyal rasulilahi sëñ bamba yaa rëy fit yaa bari jom sëñ bamba yaa bari ngor sëñ bamba yaa am diine te liggéeyal lislaam bi sëy fukk ngoogu jàppal mbàkke kenn sàccu la salaatu wa salaamu ay daam bu ëllëgee nga may nu jannatu salaamu am salaatu la. <laughs> alayhi salaatu. wa salaam. mooy sëñ Bamba. bu ëllëgee yaay. nga may noo jannatu salaam. amiin amiin incha allahu taala. yal na yàlla dëgër baat bi macha allah. waay neex na neex na lool lool lool. neex waxtaan dañoo dañoo dañoo commencé waxtaan bi rek. <laughs> dañoo commencé waxtaan bi muy neex. mooy moom tamit ñu commencé muy def. ndeysaan ndeysaan gaa yaa ngi gaa yaa ngi commencé daanu tabaaraka. ndeysaan ndeysaan ndeysaan mooy commencé message. wallaay ndeysaan ndeysaan ndeysaan ndeysaan. tabaaraka Allah mm-hmm, mm-hmm. euh, Awa Faye depuis Italie moom it mu ngi leen di nuyu bu baax. wallaay ndeysaan muy ziar bu ngi kontaan tabaaraka Allah ko ci seetaan. léegi nag balaa ñuy départ euh, mm-hmm. sëñ kat. xam naa dañuy duggaat ci sëñ Massamba rek. ay ci góor moom borom Touba. <laughs> incha allahu taala daam borom gàllankoor bisimilah yaa seexul xadim. wallaay wallaay awlaw. mais nag fi nga nekkoon nooy na. ah di. nga nekkoon nooy na lool lool ndax màggal gi gu gukkaate yi tamit kémtaan gi mooy ca ëllëg sa muy convocation convocation am gëm moo indi yoon gi te comme ni nga waxee dañ ko ko mën a sante kon ñun sant war nañu bu web bu baax muy demee ndax dañuy jóge màggal directement dem saint <laughs> man loolu ma jaaxal fu mu ne nii calcul googu la nekk di calcul. est que <laughs> ndax ñaari rakka yooya. waaw ah. ndax dañ koy ndax ndax dañuy jógee Touba rek dem dem dem. dem dem Ndar wala nag lépp Touba la rek. waaw xam nga xam nga xam nga borom Touba. Mhm. mooy li ma ko waxee daam turam wi. Mhm. te bari tur am na lu muy tegtale. waaw dëgg la. borom Touba borom Touba daa osé. Ah. macha allah. yoon <laughs> yónni woon Ndar dina ko cerno baa xam ngeen nu ma tudd borom ci borom ko Mbàkke xanaa nga dimbalee nu ko mu ne ko Ahmadu laa tudd mhm. Ahmadu mu ne ko mbaa xam ngeen fu ma dëkk borom daar ne ko Mbàkke xanaa nga dimbalee nu ko mun ne ko aljana ca nag aljanay firdawsu mhm. moo tax mu ne jawaratullaaha bil kitaabihi ilaa duhuli jannatahu jawartu dëkkaa nag yàlla kitaabi téeréem ilaa duhuli jannatahu ba karamay tàbbi aljana mhm. kon borom Touba moom assuré na boppam bu wér waaye wàcc naa wàccaale képp ku ma yaakaar moom borom Touba. Mhm. moo tax mu ne xool gu ma sopp man Ahmadul Xadim àddina mooy sa kër. Mhm. ndax xuloo bu jumlati lazina aflaho li yatawajjahat wa rabbil muslihu moom moom moom moom Ahmadul Xadim. Mhm. waaye fii mbokk mi duggaat léegi muy ci nit 4 maanaam chiffre 4 yonent yi ñaata lan. yonent yi <laughs> waaw. yonent yi. waaw bu dee nag euh, na <laughs> am na nag 124 euh, mille. fa laa bëgg a dikk. waaw ba tey da <laughs> <laughs> waaw. maanaam gis nga 4 dafa doy ba tey ba tey 4. chiffre 4 chiffre 4. Mhm. borom Tuubaa laal rek mu valable. waaw lum laal a gën lum laalul. mais lu mu tudd nga ne la wax ne la tudd. Ahmadou. jëlal dégg nga ñaata la. kaata ma ah, Madou. ba tey diggul ma la tey daa kaate. kaat ba tey kaat la lay jox. ñu ci kaat ba léegi chiffre kaat. <laughs> la ilaha ba tey ah. ñoo ngi ci kaat. Uh-huh. maanaam day am loo xamante ne lii neex. Mm-hmm. ba muy neex muy neex ci yow te xamoo fan lay neex ci yow borom tubaab gën a neex. macha allah la ilaha illallah. Uh-huh. waaw. <laughs> lépp lu mën a bu dee bu dee bu dee lekk. da ngay lekk suur boo suuree pare bu dee naan boo màndee pare waaye noos gu ànd ak egg ci yàlla mooy yëg borom tubaa noos gu ànd ak yegg ci yàlla mooy yëg borom tubaa Cheikhul Khadim waaw waaw wax na ko léegi maa ngi nii di la moy a te yaa ngi nii di ma may may loolu lu mu doon la ilaha illallah mooy adxayta nii fii jay bihi ila jinan maa ki seen bi say bihi mooy ji may yuntu alayhi salaam ku ñu fa dugal lan la ak wajaxa jami sayaat xasanaat wajël bi aqaari mu tax sanaat borom Tuubaa amul say àdde ay bàkkaar ak yéen déedéet mm-hmm. maanaam bàkkaar yi lañuy ñuy soppaleeg mu doon yiw dégg nga de. la ilaha illallah magasin buy toggi bàkkaar fu mu am. Mm-hmm. bëriwut wala boo gisee du de borom Tuubaa def na ko ci ma fàttal bishri mm-hmm. boo amoon téeméeri bàkkaar ak fukk ak juróom bàkkaar yi kenn ko effacé bàkkaar la ñuy toog mu doon yiw. la ilaha illallah. moom borom Tuubaa déedéet effacé déedéet duñ ko effacé. effacé déedéet bàkkaar yi ñooy soppi doon yiw la ilaha illallah boo demee ci maxaru bi si da nga fekk bayit bi wajaxal jami sa yaxat xasanaat wajël bi ak aqaay di mu tax sanaat la ilaha illallah moom borom Tuubaa ba tey ñoo ngi ci kaat ci kaat ndax màggal gee war a lépp mhm. ndax ba tey àlla wax na ko yan bu ñu yoroon xubb yaak ab daal te attanuñ ko mhm. ñan ñooy xubb yi mhm. ñan ñooy ab daal te attanuñ ko borom tubaab moo ko fab raw gaaña Mhm. da ngeen di wéy te tawatul balaaya. Mhm. waaw suratul Ahzab mooy lan. Mhm. oustaz. laam ci nattu. sëñ Fallou Bousso Tamba day li dem Gabon. bi mu demee Gabon fi ñu doon jaarale borom Tuubaa bis bu set. mu dem di xool di gëstu waaye daa jékki-jékki xool tànkam di nàcc moom sëñ Fallou Bousso Tamba surtout sëñ Mbàkke Bousso. bi mu xoolee tànkam di nàcc. xelam dem ci borom Tuubaa te bi bu nekk fa lañ jeej fa ñuy jaarale borom Tuubaa mhm. am na lu gën a metti loolu wallaahi wallaahi juróom-ñaari at yu teg mhm. nga ànd kook ñoom mhm. lekkoo ci li ñuy lekk naanoo ci li ñuy naan loo doon lekk yow borom Tuubaa moo tax waykat ne ko daa nga masub ñax ba ngay masub ñax xamoo lu dul ñax bay Allah borom Tuubaa foofu maanaam xam nga lu ma lay wax euh, sëñ daam waaw damaa dégg sëñ Moustapha Lo mu nettali waaw wax ni am na tubaab bu ñuy wax père Renago. waaw doom doom dañuy wax Rena doom doom dañuy wax euh, père Renago. Mhm. moo nettali si mu Lo ni ko. Mhm. sama bàyyi Renago nee na ma. Mhm. bi ñu fiy indi Serigne Touba ca garabu nga mango gee la nekk. waaye booba man damay nàmp xale laa waaye bi ma màggee sama bàyyi nettali na ma ni bi ñu ko tegee fee. ca mango ga. jiir bi mu fay nekk. nee na mosu koo gis mu. fu mu lekkee mbaamu mu naan nee na loolu mosu koo gis moom loolu Renago moo ko nettali euh, euh, euh, doomam père Renago mosu lambar na ca ca ca ca Gabon sax wala Gabon waaw na mel Mamadou Lo bi muy wër borom Touba nangu nañ ci mag mu maandu nee ñaari at tubaab bi ànd nañ tubaab bi borom Touba ànd ak ñoom te teguñu bët borom Tuubaa fekk borom Tuubaa moom ci wërngal goo xam dafa nekk di jaamu yàlla ne keroog bi mu wér borom Tuubaa lu ne def na ko déggul borom tubaa benn góor la laaj wan ko mere borom tubaa góor yi ne ko bu bët waxtu nangam jotee dinaa gis fële leer nañ waaye dinaa ko seen borom lu weex tàll it nag mu jël jaaseem di gor keroog nee na euh, tudd na yàlla nu ne def na ko waaye ba mu jëlee xas dëgg lam yabdu mistul Moustapha Muhammadin moom borom Tuuba ci bëgg yonent gi bëgg gi bëgg yonent la nga dox naa man ngeen koy may bi moom faaw ngeen nga xool bay àlla Mouhamadou Lo bi mu koy jàng ci njàngin wi Muhammadun misaalu lam yaati fi ma mada wa abadan laa yaati Muhammadun misaalu lam yaati fii ma mada wa abadan la yaati ba mu yegg ci huwa nabiyu wa rasulu wal xalil wa wal habibu wal wa dalil borom Tuubaa mu génn ko Muhammadu wa dalil mu jëm borom Tuubaa ci toll gim mu toll ci yonent bi alayhi salaam ci nag bëgg naa ñu taxaw ci sëñ Bamba Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xam nga moom wax na ko ba taay damaa génn ngir liggéey rasulullah sallallahu alayhi wa sallam léegi nag diggantee digganteem ak Seydina Muhammad garaat yi ko rasul takk ak waaye ni mu taggee Seydina Muhammad waaw xam nga dana raama rasulullah min mhm. <laughs> alhamdulilahi maanaam moom doon imagine li li li nit ñi di bañ ci kër moom moom la loolu la doon loolu la ci yonent bi tey koo ne min daan mu mer mhm, mhm, est-ce <laughs> tur gi sax nag am na ñu koy bañ. waaw mu taxaw ne maay mindaanu yonent bi alayhi salaam. ndeysaan la ilaha illallah mindaanu yonent bi rek ku nekk vrai vrai vrai mooy tagg mooy day tagg yonent ba pare doon mbindaanam. doon mbindaanam moom borom Tuubaa lépp amul xalimaam. bu bu ko yëkkatee amul ci kum jëm. Mhm. ku dul yàlla ak yonenteem bi. est sallallahu alayhi wa sallam moo tax woykat bi ne ko sa mbóoti xalimaa raw da buusu Moussa. Mm-hmm. te way deeya nga dekkal te woon na Aïssa. Mm-hmm. xalimaam bu ko yëkkatee aras di jaay kursi di jaay malaaka di sàbbal. ci mm-hmm. kan la jëm. la ilaha illallah moom yonent bi alayhi salaam ca borom bari yor moo tax mu ne ko katabtu annal muntaqaa qad faaxa man. la ilaha illallah madda wa moom fii bi kawe na mboolem seen. looy seen ak looy gis. te dootul am ci daar duniyaa yi nag moom yonent bi te lépp luy leer maam daam lépp luy leer ak fa muy leeree mhm. yonent bee ko leeral mhm. ndax borom Tuubaa dafa tagg yonent bi ci méthode bu nekk mhm. tag waxee ko nu nekk waaw moo tax boo demee ci biir mafatihal bishri bay àlla da ngay dégg mu naan ko anta sakuru innaka al alimu wa innaka al baahi laka taalimu yallahu anta al akramu haadi ahad ya nafian laysa lahu kufan ahad yooyu mi naan mbir dañuy bokkaale déglu borom tubaa li wax dana lasta bi walidi wa lasta bi walad yaa rabba kulli walidi wa ma walad déggal borom tubaa yàlla amul ndey amul baay jurul kenn kenn juru ko day tënkuwaat ci akrama nii bi xul wala ahad rabbi walam yakulu kufan ahad kon borom tubaa moo bari yàlla kennal yàlla teg ko fu mu tegul kenn nag moom borom Tuubaa moo tax ku naan shirk nun da ngay ndax war tàq ni shirk maa nifaq ak ñëw sori ak shirk ak ñëw sori ak bokkaale moom borom Tuubaa dafa denc ak réer dañal ci ak njabootam waaye yonent bi alayhi nag borom Tuubaa wax gim ko wax ba yonent bi jóor ko lam koy jóor ne ko kaama ma yóbbu la ca kamaraan jox mm-hmm. Mm-hmm. borom Tuubaa lu mu jur yonent bi la tuddee la ilaha illallah. xoola borom tuur bu siiw yi Cheikh Modou Fadal. waaw lan la wax may Sénégal lu tax muy Sénégal. Uh-huh. te ni ko gars yi ñu baax yi di waxee drapeau Sénégal vert zone rouge la. Mm-hmm. Sëñ Fall nee na vert bi du weer kenn. Mm-hmm. rouge bi du rusloo kenn zone bi du sonnal kenn moom Sëñ Fall. la ilaha illallah te mooy doomi Cheikh Khadim. Uh-huh, uh-huh. gane sa jamono Daaru Salaam tombeeg borom tuwaa di bind mafatihal bisri wal amni wal janna fi salaati wa taslima ala muqimu sunna ngir liggéey yu ñu salaam ci waxtu kañ waxtu kazu rajab moo tax mu ne yonent bi alayhi salaam dana lay ca kaw man suñu faal ma ne cëpp ci suuf. <laughs> la ilaha illallah. ñëw nag indaale ngëneelam te muy doomi Cheikhul Khadim. Mhm. maam daam nañ ber borom Tuba. Mhm. ñu ber ko tuuti. waaw bismillah. <laughs> waaw. waaw ca dikkal. ba yàlla. balaa nga wane ñàmbaaru nit ki. Mhm. faaw nga wan lu mu liggéey. te muy dëgg nag. waaw ngir ngay mën a xam kii mooy kan. jëlal doom yi. bismillah ñu doxal. xoolal seen Mourou Fadal Mbacke. waaw waykat dana ko fiñ fàllu yaa di sam soo daan fàllu yàgg ngaa daan ub nga lambi soo daan. Mm-hmm. noo ngi lay siyaare. ne ko piisi foor yi ñuy sol Mbacke yaa nu koy jox koo ci gis la muy sol lépp day woloore. lam ca mooy néegu ñax yi dem nañ. taaxi foor yi ñëw nañ. léegi sax dañuy njaj di njaj ay ginaar di reere sëñ Fallou. sëñ Fallou Serif la. Mm-hmm. fun sërifun sërifun tuuma jubluwu la sëriñ Fallu du xotti saatir du tas yaakaar du daw ku koy laaj ku laaj mu may la nga géejël sëriñ Fallu xanniyu la ana Muhammadul Muxtaaru man maa la way yow seexu naal fu dalaal yaa moom yëf yi may ma ci la lawlaa ka seex Fallu xéwal yi walwale bun walwale te na ngeen way seexunaal fu dalal fadlun asimun sërifun faarisun fasilun ndeke moom mbàkkeeg bu soobe la kii mooy njitte mooy wasila lor dem na xéwal yi baawaan dootu jeex abadan ku sopp Sëriñ Fallu Mbàkke xéewal wër la lor dadu la day ilaa man na daa sëriñ Fallu Mbàkke fii xëy ni ilaa man na daa tànneef ya xam nanu la ndeke yow loo wax borom nguur gaa borom nguur koo def ndayaay ka juboog waa ak lu diiwaan yaa seen xam nanu la baytil wilaayati yaa yor fondu maang ba ah suñu gayaa ji te ku naan wàlliw la gaa ngi nii teer ku nekk ba tarde yaa xale yëg ku dugg ci gaalug Sëriñ Fallu Mbàkke Cheikh Abdul Karim Fallu laay ak gale la waaw waaw gaal gaa ngi nii teer ku nekk ba tarde yaa xale ku dugg ci gaalug Sëriñ Basiru bi Cheikh Muntaxa Basiru xalifa gi ak la <laughs> <laughs> ndeysaan <laughs> eh, macha allah. ndax. <laughs> waaw ndax ndax Basiru Fatimatu maam. wallaahi. Eh, sëñ Fallou Mbacke dane woon sëñ Fall sëñ Muntaxa amul ku ko raw ci mbàkkeeg bu soobee mbaa moom ku mu raw. amul mas. déedéet. Mhm. amul dendandoo it nag. Mhm. moo tax solution mooy Cheikh Muntaxa. ko akbar. te Cheikh Muntaxa mooy borom Tuubaa. bëri bu amee jafe-jafe borom Tuubaa. solution ci moom la jógee. jeex na. Mm-hmm. waa Màkk bañ amee jafe-jafe sax ba yónnee borom ba bañ ñëwee ci borom Tuubaa fekk njaareem da leen bindal man man zanna nii xayra xadimal Moustapha fa inna nii aqdimu bi Moustapha. Mm-hmm. laataa ñu yegg coow la fay. da nga ne diggante borom ak yonent bi alayhi salaam dama doon jukk Sëñ Fallu rek. Mm-hmm. waaye yonent yi natt yu mu am rek borom Tuubaa teg nañ ko ko. Mm-hmm. waaw ndeysaan borom mbég mbégtaar baa ndeysaan waaw borom mbégte mbégte waaye na mbégte bi reetaan na ñëpp ree jamonoy muntaxaa la <laughs> nañu reetaan jamonoy muntaxaa mbégte wallaay mbégte gaa ngi nii kii lii lii lii lii munoo jàkkaarloo ak moom te doo reetaan kii way juróom jamonoy mbégte kii way juróom <laughs> Cheikh Mouhamadou Bassir bu doon yoonu murit Uh-huh. waaw bâtiment la ma ne kii way juróom mooy ACT gu yoonu murit allahu maanaam kii way juróom mm-hmm. bu doon yoonu murit bâtiment la koo koy ACT bi uh-huh. mm-hmm. jeex na waaye kii bi mu ñëwee da koo da koo da koo dëggal uh-huh. waaye nag kii dafa am doom di ñuy wax Serigne Seexuna mu mun Muntaxa sama Serigne man. ndeysaan ndeysaan. kooku. lu maamam doon liggéey mu ngi koy liggéey. ci bind. ak dajale téere yi. ak di wane kan mooy yonent bi ak sëñ Tuubaa. bindal na chinois yi léegi mu génn. sotti na téere bi. bind na italien. Ah. bind na français. Mhm. bind na arabe bind na anglais lépp da koy génne ngir xam ne si Tuubaa. kon dama ni. ku ne mën ngaa mën nga mën ngaa jël gaal gi waaye gaal ga nag ma nga daaru mi na ay defar jërëjëf Baye Allah waaw laa sa du gis nga sama réalisateur bi nu mu nu mu fonctionné gis nga rek Aliou Aliou Badara ABC ku doy waar la ku doy waar la dafa dégg maam jëmm ji ah mooy mbégte billaahi xam nga baayam moo tudd na Mouhamadou Bachir mm-hmm. oustaz lan mooy Bachir mbég ñu nekkuñ ci Nasir ci mbég mi lañ nekk mbég tey bégle te nag te nag lu tax nga ne sëñ sëñ Muntaxa mooy solution waaw mooy ku ñu tànn ki mooy ku ñu tànn gi moo tax ma ne katabtu annal Muntaxa xam du faaxa man ah, ah, ah. te déggal sëñ Touba dana woon ci Mafatul Bichri Cheikh Muntaxa saa bu dikkee di mbégte murid yi mm. lil Muntaxa awsil bi xayri law mi bu charatan waaw kay waaw taxul du kulla yow mi déggal ca ma faatel Bichri 1898 la xew te dara xewagul dara xewagul gën a seegul jamono masal dara xewagul dara ah, xewagul waaw waaw xam nga xam nga xam nga sax loolu am na lu ko jiitu jattu fi Dakar daam fi fi Dakar am na lu ko jiitu foofu bëgguma faa dugg waaw xam nga ba yàlla bëgguma faa dugg damaa bëgg émission bi ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo dem ci ci mbégte rek. man day wax dëgg fa fu ne sama xol baa ngi sedd. guy waaw waaw waaw <laughs> ndax ndax xam nga. am na fam ne bu ñu fa tàbbee rek sama xol baa ngi sedd guy ah lu ñu di dox macha allah waxtaan gi xam na xam nga xam nga li tax ndakaaru ndeysaan ndakaaru am sens ndakaaru dafa am sens ndax jumaa ju mag jii fi ndakaaru ngir jëmmi borom Tuubaa am na sens ju ju mag. ju mag. Mhm. kan moo fay jiite it Serigne Moustapha moom Cheikh Abdou Khadir Mbacke. Mhm. mooy muy imaamu imaam yi muy Cheikh Abdou Khadir. Mhm. moo tax bu ñu tegee borom Tuubaa waxtaanee ñenn rek day mat sëkk. ndax borom Tuubaa ni wax naa ko sànq yor lu ñuy ñambaas léppam daa mat sëkk. musta def lu ko astafra fekkee moom jëm borom Tuubaa. te dana tubaab bi musumaa tooñ yàlla musumaa tooñ sama moroom musumaa tooñ sama borom moom jëmmi borom tubaa ji mm-hmm. boo déggee mu ne nafaali xayrillaahu xablu fin dari bi ahli badrin xusooli kadari mm-hmm. nafaali xayrillaahu fi dakaaru mm-hmm. kullu adam lii jarrahum bakaaru moo tax ma ne borom tubaa ak yonent bi lenn la arfan bi arfin natt yi ñu tegoon yonent bi yëpp balancé wu na ci borom tubaa bañ koy dugal kasob ndakaaru gii ba mu tegee tànkam ci kaso bi tànk bi mu njëkk a teg ràbb gi dafa jam basar teewul uh doo ko dégg ci borom Tuubaa metti na déedéet mm-hmm. waaye tewul mu tegaat weneen tànk wi mm-hmm. te bañ koy dugal ci kaso dañ ne ko neex naa jaamoo yàlla moom jëmmi borom Tuubaa mu dugal tànk bi ràbb gi jam ba sar mu tegaat weneen wi ràbb gi jam ba muy kennal yàlla ba tey ñu delluwaat ci wakkaana xaqan mu ne akkarama nii bi xul wallaahu ahad rabbi walam yakkuloo ko fa ahad bés boobee waajuram wu tedd wu soxna jaaro bu sox borom poroxaan fekk na ko fa ndax boobu mooy mooy sobitaas moom borom tubaa ndax yonit bi Cheikh musaa ko dane ko nattoo di kerkeraani law li yaay ku weddi laajal xayru anbiyaa yi mës nañ ko génne mu dem ba najaraan ñu di ko sàndi dottanaan day njabaraan borom tubaa dañ ko génne mm-hmm. niñ génne yonent bi lañ ko génne mm-hmm. waaye lan la ci teg fab nañ ko tàbbal ci biiru sarwaan jox nañ ko tooke teewu ko doy kéemaan bisub keroog la yàlla wàcce saaru naasi ak falaxi mocce ko xayru naasi bisub keroog la yàlla daaneel kéefër yëkkati lislaam islaam googu yëkkati ko nag tey jii la borom tubaa yëkkati islaam iski ce que mm. est allah ndax safar weeru safar weeru natt la woon ci borom tubaa mm-hmm. bu weer bu mosaan ñëw dañuy yokk nattu yi mm-hmm. waaye weer wi ñëw borom tubaa di xaar ngir dékku natt yi borom yàlla ne ko jeex na tey laa ilaaha illallah fi mu ne nii lu des loolu sant. bisu mbégte rek. Euh, xam naa ni daal waaw waaw waaw ñu may ñu may lii nii il nous reste que trois minutes xam naa ni moom <laughs> comme comme comme li ma gëj di wax euh, sëñ Touba moom kenn mënu ko waxtaanee ci ay simili ah, ah waaye nag régie ABC may nañu 10 minutes. góor waay ngir def ko moom it ci safar gi la. waaw ABC nag mu doon ñu man pour man. sama des ay 30. ah 30 daal de sëñ àll wayagul. déet daal. nañ ko bàyyi léegi en tout daal am nañ 13 minutes yoo xam ne. ABC may nañu ko. ABC daal yàlla ABC ABC yàlla boo. amiin amiin ABC ABC yàlla bu ABC. allez-y vite am na am na am na wéy bu ma ko yàgg di bismillah bismillah kon <laughs> sama wéy bi. ayca bismillah. Euh, kii kii ba dañ la ràngal ak kii waaw xam nga. Euh. ayca bisimilah bëgg yonent bi mais balaa loolu nag boo yéen ñu Cheikhul Khadim ñu doog ñu doog nga doog a kii incha allah. waaw léegi xaaral ma bu ne ma ñambaas ci dara rek. waaw waaw waaw. léegi damay dafa wax wolofal bu am solo xaaral ma laal ci tuuti. laal yow laalal la ci yonent bi. waaw maam lépp lépp rek mat 3 minutes wala 4 minutes. waaw waaw. <laughs> علمني الرحمن في سفينة بأنني خديم المدينة علمني الرحمن في سفينة بأنني خديم المدينة في ليلة الجمعة لن كتبل ci néeg bu lëndëm noon ya naa ko làmbal mu làmbu daj ay gobara ki rabbu ñu tëj ko foofa dem mu des faak rabbu mu daldi jublu xibula daldi kaabar nee keroog mënta sujjoot ngir tartar mu jàng fa saaru baqaraak imraana jibriilu moo ñëw tijji néeg ba fil xuraani am na fa ñaari guddi am na fa ñaari guddi lekkul naanul lu dul ci leeri yàlla daal kooku neenul sëñ bamba nee na am na fa ñaari guddee waaw lekkul naanu lu dul ci leer yàlla daal koko neenul nee na keroog gis na fa sunu maam njaara mu di ko ñaaxee te di ko dolli daara nee na keroog gis na fa rasululaaye màggal leen rasululaay mu di ko lool dee ko xam ku weddi lii na sëriñ Mor Penda moo fekkoon waxtaan wa keroog moog balla njool ma kanaa ko xalamal saaba tudd am sotooli leen xitaaba nee keroog jibrilu mikaayilu kasaaka asrailu asrafilu ñëw nañ fa ngir bëgga alak nasaraan bi ci xeeti yar telemaa niraani li lee taxoon sëñ bamba naa ca way wa an xum li doy na wa sëriñ tubaa yaa di jàmbaari seyduna muhammad te yaa di jàmbaari yàlla mi la moom xaadim rasulilaahi amoo moroom déglul nag ma wax la na du mustafa ba mela mel ba mu tudd ngeen gi windéef daam gën ñëpp yàllaaw déglul ma wax la fa leer ak Mustafa solo yaa si man ba dinaa dinaa ni yàllaaw garab yi dan wax ak asim janaaw ya di wax njaay àll yaa doj ya naan yàllaaw yàllaaw baleer ga siiwee ba buru si déggu ko bis ak xay saraak abasaak waa réew ma yàllaaw ñu yónnee ko addiya ak lee tartanaa ko dono bëggoon nga denc ci sunu askan wi yallaaw mu tàggu baayam keroog abudul manaaf mi mu dénk ko dénk bis bam faatu yallaaw man ko naan bul denc bi trente yu laaye waay mën a dencal ma bintul habibullaahi yallaaw keroog laa simra ñaan dem makka muru armal faaye aj fa umra ñaan fay soxna yàllaaw keroog la jóg doomi baayam yëpp jóg ñu ni mes mu taalibey mag jëroon seen ngir gi yàllaaw mu taalibey mag jë moo wax gaaye ñëpp na leen ku yàlla jiital bu leen koy jiitu yàllaaw Cheikh Dame ñu daal koy jox yëri àddinaana yëpp mu sol ndeke ñoom seen maam yowoon dan ko daa donante yàllaaw daraay maam sun ibrahima lay njëkk a sol sol daal li si sax nooxin ba yàllaaw ndomba kilaabin terax lu laa yàlla ca teg man topp ku say ilyaas ba yàllaaw ñu jox ko ay su ismaayila ba ak parisol ba bom doon ne woon ñaani zaar ak max bi yàllaaw ñu jébbal ko caabi kaaba ak makkata foofa mu yore si xaayatul xaaji mooy xalifa yallaaw a ah, keroog ba salma gisee xaasim leer gu rasulillaahi ga ca jëba ca la daanu ca lan ko xam nga ni leeru rasulillaahi amul morom gi ca la la jararango per bile jaranas diggal baaye laay we rasulullahi yàllaaw waa daam jëlal loolu yaa ko moom bëggoo ko kenn jëlal non foog mu yem foofu foog nga yem foofu nag xam naa ni ndax wax dëgg fa yàlla daam li nga bëgg nag li nga lu duuf ci lu duuf ci nag bi xajul ci cin wi fa la yem <laughs> fa la yem macha allah ah. mais nag mais nag mais nag dafa am lu xew Eh. lu xew mooy ñu gën a bari fu mu ne nii sama téléphone bi. ñu ngi lay laaj ma Massamba. lay laaj bu baax a baax baax a baax laaj gi du ëpp loola dinaan à chaque fois ki nga invité tey jii macha allah sëñ ma sàmm <laughs> naan ma sëñ ma sàmm bëgg naa <laughs> ko ma nga <laughs> ah, naan sëñ léegi vite fait ak ak ak bëri ah, ah, ndeysaan ndeysaan kon la nga nga loo ñuy tàggatool rek lan nga ñuy lan safar gi nga xamante ne ñu ngi koy jëm ak lan mooy message bi nga bëgg a lancé kulli euh, murid yi ndeysaan jërëjëf euh, sëñ Alla waaw xol daal bu seddee day nag ñaan kese waaw lancé bi ñuy lancé daal ci màggal gi mhm. mooy bernde rek kese bernde kese gars nag <laughs> dañuy ñëw naan jàng alxuraan ak màggal gi du du du bernde ak nangam nangam waaye man daal fi ma féete man màggal gi daal bernde la <laughs> màggal waaw berne. daf salaama man ci moom laay dal. non non sëñ Massamba man ci yow laay dal <laughs> parce que c'est ay jàng alxuraan yëpp même même fekkee sëñ bi wax na ko sax nee na boo mënul nga nga wut keneen ku la ko defal. bernde maa ngi ci yow. ndax moom dana dana ñëw leen santale ma yàlla. jeex na waaw. dégg nga. ñëw leen santale ma yàlla. Mhm. la la ci tàmbalee. ñam joxe ñam. bernde xale ñam de. ne xeebuma ginaar. waaw nawuma gileem. wallaay moo tax woykat bi ne. ataaya naana pom ak banaana kokook ananas wàcc ko ci màggal café ki suukar fanta coca lépp lu saf neex wàcc ko ci màggal utal ginaar saaf te roof ko ba mu saf boole ci ay yëf ci bisu màggal mhm. fajaru màggal nag moom moom moom mooy mbir mi maanaam toggal ñam yu tedd sedd lool te neex loolu. maa ngi ah, ah, man daal ah, man tey laay dem tey laay dem. maa ngi nuyu sëñ tey ji tey ji laay dem. maa ngi nuyu sëñ Xalil uh-huh. la ñu ndékki. bar. ñun vingt fois lañ ndékki. baax a baax. bis wi yeeg. ndékkee ndékkee ndékki daaw mais dafa ëpp. man de ndax ren moom ren moo ah, xam ne nag xam Samba foo ne moom. danaa la fa wër. loolu dina dina dina te incha allah dina def ay plateau Magal Touba bu soobee yàlla. Mhm. bu fekkee ne daje nañ fa bu ko fa. Ah. diwo gii ñu àggale ko ca Magal. incha allahu taala ca Touba a ñàkk mhm. ndax ndax li tax loolu. Mhm. mooy Magal gi lépp lépp valable. wallaahi dama naan Magal warul am warul am coono. jeex na maanaam xoolal ba ci jur góor sax jur góor mhm. jur mhm. nit war na ko préparer ndax nit nit day nekk ci waañ bi jàgg noo <laughs> <laughs> pare lépp la yow saa yi lan nga wax mooy dëgg. kër daal de. <laughs> yor parce naa soxla jur góor te du xam fu mu koy sëñ Massamba yàq nañu. daanaka sëñ Massamba. waaw fi nga dal maa ngi fa. waaw man leneen laaj ma ko fu mu ne waaw waaw sëñ Massamba ñëwul ci kii la déedéet. non macha allah. wallaay waaye nag kontaan naa bu baax ci dalal la. yooyu waaye yow yow de xam naa xam naa xam naa xam naa sa waa wàññi dinañ pare de. lay lay la comme dañ ne loolu moom xam naa ni. dinañu pare ndeysaan ndeysaan da koy mat ndeysaan ndeysaan ndax moom xam naa ni man waaw émission bi moom uh-huh. xam naa ni man man man maa ngi doon yaakaar dañ doon door tàmbali émission bi sax waaw man gis naa la ngay tàng ah. te gis naa la bañ bañ bañ signalé rek gis naa maa ngi tuub maa ngi tuub ndax wax dëgg fa yàlla yaa ngi wallaay wallaay maa ngi tuub ñun tàmbalee bu ñu woon sax dañ doon bippee rek de yaa ngi tàng kon benn appel ba màggal gi appel bi appel màggal gi la insha allahu taala <laughs> appel bi comme bi dañ doon bippee insha allah man daal maa ngi woo ñëpp sama kër gene bu so maa ngi woo ñëpp ci màggal gi mhm. Gaynde Buso mhm. insha allahu taala mhm. ndeysaan di sant koo xamante ni barki démb lañ jóge Touba Pape Samba Ndiaye ñu dem daralu ndindi bi ut fa ay gàtt yu baax kese fas yéene ko def monsieur yu ndaw nag xam nga day neex a monsieur año yoo xam ne ah waaw gaynde ah, año año rek màggal war tam coono jàppal ma jàpp war tam ci màggal gi jàppal ma dagg sax waaw ay ceeb sax war waruñu ko def ci màggal parce que maanaam lépp daa war a nooy xam nga bëñ yi baaxutu a waaw maa ngi jéggalu baax baax a baax a baax waaw tuubal naa yàlla baax a baax yàlla na yàlla def amiin amiin kon nag incha allah ñu defar bëñ yi. ah xam ne bu soobee yàlla mais eh. nooy. waaw ah, nooy. kon baax na ayca bismillah euh, sëñ Allé euh, looy tàggatoo vite fait comme ça ñu ñu ñu. mais sëñ Allé moom du

yaay borom jàppundal borom doo kaaseex saaliwoo waay daam li may bëgg a wax noppu la laaj may leen ma ko ma wax fi jikkoom wax fi xar baaxi seex saaliwoo yow mayoo ñu jël rekk yem caa danga noo wutal gaal gu nappe di am jël seex saaliwoo waaye gaal gi ngay maye du bokk ak gaali gaayile yow sa gaal dafay napp nga tëkk bër seex saali woo ma sàmba waxal daam waxatil tey ma bàkk mbër bàyyi sëriñ murtala caat seex saali woo ku soof laa woon man ku suufe laa woon ci gaayile yaa ma ba ñëpp naa àlla seex saali woo moo tax sama dund ak sama dee mbàkke jox naa la ko ne yaa ma sargal yaa ma siggil seex saali woo ku lay sant maa ca war a jiitu seex saali woo ma may jëkk privé dawalal ma seex saali woo nit malaak mala yi ñëpp lay bége kudul yàlla ëpp la yërmaande seex saaliwoo fi nag loo fi gis muy neex a neex neexul ba dàq lem yaa dàq lem yaa dàq suukar seex saaliwoo waay addi sëñ Saaliw alors vite fait nga nga tàggatoo vite fait. waaw. wallaay wallaay. signalé ah. waaw xanaa di sant. Mhm. bu baax. di wax ni waa réew mi gis nañu ni ñu def màggal gi. li Serigne Touba woote. wallahi asim kenn jiituwu leen ci. barki démb dëkk bi ma doon jàng ñu koy wax suluf ci ginnaaw si bi xutaan. ndeysaan ñoo ngi ma doon woon yi léegi sax. ndeysaan ñëpp ay tijaan lañu. ñoo organisé safar gu mag ma di leen ko jàngal. barke borom Touba. kon safar gi maanaam sant yàlla la. bu nu wootee sant yàlla nag ku ñëwul yaag yàlla. barke borom Touba réew mi wuy si nañu hmm. sëñ Touba lii nga xam ne moom la woote hmm. kon réew mi amuñu seen fay ndax chrétien ñëpp jóg nañ man man man depuis safar gi ba léegi noppaloo damay safar. Ah, waaw dem démb rek maa ngi ginnaaw Kër Massar. yàlla xam na ko di safaral Baye Fall. waaw di waxtaan ak Cheikhul Khadim. waaw mu ngi noonu kon yal na ñëpp am jàmm. réew mi yal na fi jàmm sax. amiin amiin yal fi ci jàmm ñëpp am jàmm. amiin maa ngi sant waa Géejawaay nag amu seen fay. jërëjëf kon euh, euh, da ngay dolli benn mbir wala benn kaddu ñi ngay sant. waaw waaw ci moom daal noo ngi sant bu baax mhm. ndax mboolem mboolem seen waa fondation ànd jëfal Serigne Saliou ñoo ngi topp jotaay bi jërëjëf ba tey ndeysaan ñoo ngi message di leen ñaan bu yàlla defal leen tawfeex amiin amiin amiin ñoom ñi nga xamante ne toog nañ fa kanamu Serigne Cheikh mu Serigne Saliou ba Serigne Cheikh tuuri xéewal di nuyu yaa aada di nuyu Baye Baye Baye Bunaama Baye Ahmadou Mbuup Jiwri Mortala ñu ngi leen nuyu ñëpp waaye li ko Baye Alla waxee rek safar gi day mel ni sax ren tiijaan yi ñoo ko gën a yëg murid gi waxuma la déedéet dañu ji safar nañ Mor ak Lamine Niang Sono ndeysaan ñu ànd ko murit gi moo seen mboolem seen waa quartier am de la 2 mboolem seen waa marché inte 14 ñu leen di nuyu di leen ziyaare baax a baax di amal mbégte bu baax ci plateau bi maam daam yàlla xam na ni suñu xol sedd na wallaahi suñu xol sedd na ndax démb bi ñuy woo yàlla xam na ni ah, joxe nañ gànt gu wér ndax fu mu toll nii nii sama koñ fu mu toll nii maa ngi fa ñett safar yoo xamante ni maa ko war a taxawu ndeysaan waaye bi mu wooye ne ma ngir Cheikhul Khadim ndeysaan mm. ngir ngir ngir te nun ngir gu guy ngiroo rek borom Tuubaa ba moo tax ñu ngiroo kon nag ñoo ngi lay ñaan bu yàlla defal la tawfeex defal la samab daare ni di sant sama waa kër gépp nag ñu dal sama waajur wu jigéen soxna Ngom. Mm-hmm. ak mboolem seen sama mbokki eh, mag yi soxna Fatou Ngom Ndiak Saw. di nuyu kenn ko am ne taalibe Serigne Moustapha Sy la. macha allah jàpp ma ngi Serigne bi ma woote mu ñëw yëkkati koppar gu bëri jox ma. muy kenn bëggul mu Serigne Moustapha kenn bëggul. Mm-hmm. mu Serigne mm-hmm. am naa tàmbali ci moom waaye aw ma yemukaay ci moom. kenn bëggul bëggul jàmbaar goo xam ne social. gisuma réew mi ku ko ci man la ci lool kon noo ngi koy ñaanal kenn bëggul yàlla na yoonam àgg gàmmu gi kër sëñ Moustapha Sy gisuma ku ko mën ay nag lay yabal ay teraanga yu yaatu bu mën góor ngi jëmmi Serigne Moustapha Sy kon nag yàlla buur yàlla defal ko tawfeex moom Serigne kenn di nuyu sax sama soxna sama soxna nuyu ko nuyu ko nañ ko nuyu waaw bu sa baal yi ñàkkul càngaay bu sa baal ñu ngi lay nuyu bu baax a baax ñu ngi koy sant bu baax alhamdulilah <laughs> kontaan naa baax waa acca yaa oustaz alors ñu ah, ñu ah, ñu ah, ñu tàggatoo vite fait sëñ Aliou sëñ nag yow tàggatoo nga bu pare de sëñ bugguma benn coow fii di daanu xaal li ma daanu xaal rek baax na. aca <laughs> bismillah ñu ñu ñu tàggatoo vite fait li may def mooy taa kii na li may def daal mooy sant sama gars yi rek tabaarakallaahu ndax fi mu ne nii ñu ñëpp daanu nañ sëñ ma Samba fekkoon naa ko mu programme leneen waaye ma kii rek ñaan ngir jëmee sëñ Tuubaa gis nga lii rek lañ ci bëggoon ñëpp bëgg yàlla xam na ko fi li may jot ci message kenn xamul yàlla ñëpp dañoo bég ci yow ak sëñ àll yëpp tabaarakallaahu ñoo ngi kontaan daal ñaan yàlla yàlla neen yàlla fay yiw bi jaay ngi seyduna Muhammad yéen daal xam <laughs> ne tabaarakallaahu mhm. moo ngi ñuy seetaat baax tabaarakallaahu ma nuyu ko Ahmad Dame Samb maa ngi koy nuyu Aliou tamit tabaarakallaahu maa ngi koy nuyu bu baax a baax Modou moom Sëriñ Saliou moo ngi seetaan it tabaarakallaahu moo ngi nuyu ñeneen ñi des nag ngeen baal ma yéen ñëpp nuyu naa leen yéen ñi nga xam ne yéen ngi topp émission bi maa ngi jeexalee nag tabaarakallaahu di leen yéegal lama leen yéegaloon muy Serigne Mouhamad Guèye mi nga xam ne tabaarakallaahu mu ngi dëkk mbuur waaye ne di def kat ni la 3 septembre incha allahu taala fële ci kër bi daan commune Saly incha allahu taala ñu ngi koy yéegal waa Saloum di ko yéegal waa Gambey li ko wër yëpp di ko yéegal waa Kanta waa Kaba Kaolack Kaffrine Mbour gi nga xam ne tabaarakallaahu fa lay jógee maa ngi koy yéegal ñëpp nag. ñëpp laa ko yëgal bàyyi ma kenn le 3 septembre lay doon ñu dem incha allahu taala kat bi bu ñu jógee dem màggale incha allahu taala jeex na jeex na kon salaamaaleykum di leen di gërëm bu baax a baax di gërëm waa ji ci jàppandal gi ñu jàppandal image yu rafet ak yi nga xamante ne jox nañ ñu ko ñuy daan ci xaal ñu ngi gërëm ak ki nga xamante ne moom mooy moom mooy jibaa ñi fa nekk macha allah ñu jàpp ci liggéey bi ba mu yemb ñu ngi gërëm ki nga xamante ne moom mooy Pape Fall sama grand la actuellement mu ngi unité 4 waaye nag safar gi fu ne nii dafa xat xataay goo ne ciy bu baax a baax di gërëm képp ko xamante ne jàppoon nga ci mbir ma di gërëm ki nga xamante ne moo nekk ci kër gi Mariam di jàpp ci maquillage yeeg ni ni mel ko tudd daf ñuy xoj kon nag jërëjëf salaamualeykum wa rahmatullah ba ëllëg incha allah comprendre, le temps de lire et de s'informer véritablement. Détente, loisirs, l'actualité. journaliste Aimez l'actualité avec les plus belles signatures du Sénégal.